chers internet yu kenn bëggul TV dal leen jàmm ci seen chronique yi nga xamante ni euh, yéen ci ànd ak seen soppee maam Khalifa gannaaw bañ leen ndokkalee ci koor gi ñu nekk di ñaanal ñëpp aussi euh, ñu euh, dugg ko ci jàmm jeexal ko ci jàmm tam di baal wàq ñëpp di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñu leen di ndokkale bu baax baax a baax tey ñaan yàlla mbébét yeeg yéen yi yàlla mottali ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di ndokkale waaye tamit del seen chronique bi nga xamante ni saa su nekk ngeen ànd ko seen soppe maam Khalifa ci kenn bëggul TV tey nag suñu chronique bi dañuy delluwaat ci situation bi nga xamante ni actuellement ñëpp a ngi koy remarqué ci suñuy hôpital li waral li ni mel nag moo di euh, situation ba xew ca hôpital bu euh, Louga ak génnuk àdduna Astu Soxna dañ dellusiwaat ci euh, scénario décès bi nga xamante ne nii ñëpp ko ñaawlu waaye tamit yenn ci ay remarques yoo xamante ni ñoo ngi koy def ci yeneen i hôpital yoo xam ne ñoo ngi def alerte ci biir réew mi. loolu yëpp dinañ ci ñëw def taxaw seetlu ci suñu sage-femme yeeg yenn ci infirmière ba ci médecin yoo xamante ne di seen comportement daal ci euh, ni ñuy doxalee ak seeni malade daal doy na waat loolu ban cër la euh, médecin am ci euh, patient ban tamit comportement la war a am ci kanamu patient am rawatina ñi nga xamante ni dañoo nekk ci ay cas critiques loolu yëpp dinañ ci ñëwaat ca na mu gën a yaatoo waaye nag balaa loolu mbokk yi dinañ ñëw def taxaw seddu ci euh, ki nga xamante ne di moo di kenn buggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si ak activité yi nga xamante ne nii surtout yaay Fatima yi amaloon nañu ko du 1er au 3 avril di 72 heures sargal kenn buggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si remarque ya ñu ca def ak tam taxawaayu bés ba ba réussite mujjee ci am loolu tamit euh, lu jar a taxaw seddu la ndaxte ko xam kenn buggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy xam ne yitteem ak yéeneem lépp nag mu ngi laxasu ci euh, taxawaay waaye tamit gën a dëgëral pas-pasam ak cofeelam ci sang bi di Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy moomu nag la ñu doon sargal euh, ci euh, anniversaire am bii di la 3 avril surtout yaay Fatima yi sax ñoom ñetti fan lañ ko def te moo di du premier au 3 le premier dañu ko ubbi ak ay ñaan def euh, kaamil ñaan daal di ñaanal tamit sang bi nga xamante ni moo di kenn buggul mission bi nga xamante ni di yaatu na lool ci diine ji yaatu lool tamit ci mbindeef yi loolu yëpp yàlla mottali ko yàlla gën ko dëgëral yaatal tamit taxawaayam li ni mel nag ba ñu ko defee ci àjjuma yemoo ko 1er avril 2022 ci samedi ba yemoo ko 2 avril 2022 ci la ñu def nag activité boo xamante ni di diine dëgg laa la ñëpp gis ci seen bopp rawatina nag këru diine yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir réew mi activité bi amoon solo lool ñu fàttali ne sargal gi sax nag ku nekk def ci dugaloon loxoom ndax surtout yaay Fatima yi dañoo waxoon ne bés boobu kenn bëggul moomu ko waaye ay soppeem ñoo ko moom tax na ñu defoon entrée soixante mille francs waaye dañu gis ne yëfee sax daf leen ëpp loxo activité bi euh, ñu bëggoon koo def sax ci biir kër kenn bëggul bu Seex Seydi Mouhamadul Moustapha si waaye njortoon na yëf yi dana ëppi taxoon na ñu daal di ko na génnee yóbbu ko fa nga xamante ni moo di terrain Diacksao 2 waaye de activité ba la ñu ca seetlu moo di dafa mujjee ëppi loxo ndaxte mbooloo ma fa tee woon ëpp nañu juróom benn téeméeri doomi aadama ñoom ñëpp jënd seen ticket 60 mille ngir ñëw wan seen cofeel doomi borom bàmmeel bi di kenn bëggul bu Seex Seydi Mouhamadul Moustapha si seetlu ga ñu fa def nag moo di këru diine yëpp teew nañu fa lu ëpp onze prestation am fa kenn ku ci nekk ak tâcham méngalul ak diine jamono këru diine yëpp gis ci seen bopp li ne mel nag surtout yaay Faatime yi ci boppam ñoo ko organisé di ay ndaw yoo xamante ni nii ki leen tàggat moo di kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy tàggat leen ci diine tàggat leen ci jom tàggat leen ci seen personnalité ñoom soxna yooyu nga xamante ni nii fonk nañu seen diine dañ doon profité ci bés boobu ngir delloo njukkal kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy bés boobu nag nekkutoon bés bu yomb ndaxte bu ñuy xool rek ci wàllu sécurité du ëpp 60 éléments de sécurité ñëwoon nañ fa teew lépp ngir gën a jox gëdd rek bés bi ñu dugal ci rek ci wàllu préparation du ëpp 12 millions de francs CFA ñoom soxna yi profito ci bés boobu sax gën a xamle kan mooy kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy ñi nga xam ne ñooy soppe yi fàttali yéen ci ay réalisation yi nga xamante ni moo koy def rawatina ci wàllu social kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy ci at mi ñu rek lu ëpp 2 de francs CFA génne teg ko ci bi lépp jëm ci wàllu social lii mu dugal ko ci ay kër yoo xamante ni soxla nañu ko ci wàllu ravitaillement yenn yi mu dugal ko ci ay hôpital yoo xamante ni nii ay patient ñu ko lool ci wàllu urgence yenn yi sax moom ci boppam moo ko taxaw yenn ci ay malade yoo xamante ni nii soxla woon nañu lool ndimbal ngir mën a faju lii yëpp di ay réalisation kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ñoom surtout yaay fàttame yi doon ko fàttali di xam xamle ni kii ñu am daal di ambassadeuru Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy yéene mu di jàppale képp ko xamante ni néew di doole nga rawatina nag jigéen ñi nga xamante ni nii ñu ngi bokk ci connexion yi nga xam ne ñu ëmb sëtu yaay faatima yi ñoom sëtu yaay Fatima yi di fàttali ne financement wu kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy foo ko natt rek weesu na ko rawatina ci jigéen ñi nga xamante ni lii moom kenn bëggul li muy wax moo di njabootu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy warul di tàllal loxo tax na mu leen di jàppale ci wàllu financement dimbale leen ci wàllu liggéey ba kenn ku ci nekk nga am sa financement bopp teewul nag daf lay surveiller bu baax di xool financement yooyu ndax yaa ngi koy dugal ci lu leer ak tam nan lay fexe ba gën la dooleel surtout yaay Fatima yi di delloo njukkal képp koo xamante ni nii bàyyi woon nga sa yitte ñëw teew ci cérémonie boobu du 1er au 3 avril 2022 ci fàttali sax ca dimanche ba cérémonie bu am solo moo amoon ci biir kër kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy délégation yi jóge ko ci diaspora bi ci biir réew mi bitim réew ñëpp ñëw di delloo njukkal kenn bëggul kaddu yi di taqarnaase ku nekk bëgg a wan cofeelam ci sang bu tedd bi di kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si kenn bëggul nag def déclaration bu am solo ci dina de gala boobu doon fàttali rek yéeneem ak taxawaayam ci ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaawam rawatina sëtu yaay faatima yi gën a xamlewaat nag cofeelam ak taxawaayam ci kuréel gi ni mel ak tamit doole gi nga xamante ni fas yéene ko dooleel sëtu yaay Fatima yi nga xamante nii connexion yi foo ko natt rek weesu na ko ci biir réew mi ak bitim réew moom kenn bëggul nag mu jot nag ñu fàttali waat mbokk yi gëddëm bi nga xamante nii jox na ko nag. lépp lu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy joxoñ moo xam ci wàllu politique ci diine ba ci sax jamono bu ñuy fàttaliku ci élection locale yi ñu génn kenn bëggul ba Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy toogul këram ndax lépp loo xamante ni moyen la moo xam oto la wala financement lépp daf ko dugal ci campagne bi nga xamante ni ñeeloon na maire bi nga xamante ni moo nekk ci goxam di Diacksao moom kenn bëggul ba Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy en 112 jël ci ay millions dugal ko ci biir campagne bi ni waaye tamit exiger képp koo xamante ni nii njabootam nga mu daal di voter ki nga xamante ni moo di maire bu Diacksao ba nii la amee ndam moom maire ba moom kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ne defuma ko ngir maire bi waaye dama ko def ngir rek ki nga xamante ni moo waral lépp te mu di Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy moom warul joxoñ moom sango bi muy laal suuf moo tax mu daal ciy taxaw lool nag ba daal di ba moom sang bi mu daal di am ndam nag ci jagsaaw Yewwi Askan bi mujjee fa am ndam ci taxawaayu kenn buggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy waaye booy xool kenn buggul buggul benn yoon joxuñu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy di laal suuf booy xool ci élection législative yi ñu jëm parrainage bi commencé nañu ko waaye kenn buggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy bàyyilu yëf yi mu sedd ndaxte ci 24 heures rek moom kenn buggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy fexe ne ba am 1234 parrain yoo xamante lépp nag nekk ci ay njabootam nekk ci biir jagsaaw waaye nag li jar di kan la kenn bëggul ba Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy parrainé loolu nag moo jar a laajte ndax bu fekkee ne ñu bëri jàpp nañu ne ñoom kenn bëggul di liggéeyal kenn bëggul moom ko xam taxawaayam xam tam personnalité am ne kenn ko yëngal te kenn dong moo ko tax a jóg te moo di sangam di wasilaam di gayndeem kooku mooy Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha yëpp nag war a tax ñu gën xam nag dayoo kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy waaye tamit bàyyiwaat ko xel bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne moo ngi koy def ci ndaw ñi ci jigéen ñi ci social yi nga xamante ni mu ngi ci dëkk subangoon gudde guddeeg bëccëg lépp nag mu koy def ci turu sang bu tedd bii di Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy Maktoum nga xam ne moom kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy du def lenn nag loo xam ne sang bi yëgu ko te nag da ciy am aval ba noppi nag doog ko réaliser moo tax saa su nekk ngeen di dégg sang bu tedd bii di Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy di ko delloo njukkal ak a bàyyiloo xel njaboot gi ñu koy gën a bàyyi xel ndaxte rek kenn la ci moom waaye tamit ku muy bàyyi xel la mbokk yi lii benn pàcc la woon rek bu ñu doon def ci réalisation kenn bëggu ba Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy ci ñëwaat sax ci fan yi ñu jëm ci na mu gën a yaatoo waaye nag ñu def taxaw seetlu ci suñu chronique gu tey jii ak mbir mi am fële ci diwaanu hôpital bu Louga nga xamante ne nii sàgganteeg personnel de santé bi moo tax Astu Soxna daal di mujjee ñàkk bakkanam ci fàttali moom Astu Soxna nag dafa ëmboon ba toll ci juróom-ñeenti ñëw ci hôpital boobu bëggoon ñu sauver ngir mu am doom waaye boo xool 9h30 la ñëw ci hôpital boobu ba 5h bi nga xamante ni génn ci àdduna coono rek la nekkee woon moom Astu Soxna ba ni mu ñàkkee bakkanam sénégalais yu bëri di ñaaw lu taxawaayu personnel de santé boobu nekk ci hôpital bu Louga te li ni mel sax nag li tax sénégalais yëpp nag am ci naqar

dimbale leen ma ngeen opéré ma ndaxte nag wóoru ma sax ndax suba dina ma fekk fii ci adduna maa ngi nii sonn naa dee naa tàyyi naa waaye nag ci fàttali bu ñu sukkandikoo ci borom këram sage-femme bi nga xam ne moo ko doon taxawu moom asu soxna daf doon ñàkkal kersa asu soxna bi boole di ko gëdd ak yuuxu moom sage-femme bi di xamal asu soxna ne ko sa yuuxu yi nga yuuxu naan dimbale leen ma boo ko bàyyiwul dinaa génne sa hôpital bi génne sa borom kër hôpital bi jàkkaarloog yow ndaxte li nga war a def sa bopp bii moo di tey jii mënuñ laa opéré bokkoo ci programmation bi te mënul nekk tey négligence bi ni mel nag moo mujjee yóbbu bakkanu asu soxna jëf ni mel nag ñu koy seetlu ci hôpital yu bëri ñu bëri di laajte laajte lan mooy taxawaayu sage-femme ci kanamu patient yi nga xamante ne nii dañuy nekk surtout ci situation yu doy waar ñoom médecin yi nga xamante ne nii saa su nekk seen responsabilité moo di sauver doomi dama tey jii képp koo xam ne yaa ngi dem ci hôpital da ngay tiit sax est-ce que di nga indiwaat bakkan li tax na nguurug Sénégal gi sanctionné yenn ci personnel de santé yi nekk ca biir hôpital ba bokk na ci DG bi nga xamante ni moom dañ ko dàq ca saasa ak tamit sage-femme ba ak ñett ci personnel de santé ba naka noonu tamit juróom-ñeent ci ñoom fi mu toll nii ñu ngiy jaabante ci euh, loxo yoon yoon sax nag procureur bu Louga ci boppam mu ngi xam le ni enquête bii ubbi nañ ko te bu fekkee ne dëgg la euh, ne dañoo négliger asu soxna ba mu ñàkk bakkanam ñoom personnel de santé bi euh, danañu teg ay daan yu métti ci seen kaw te li ni mel nag ñoo ngi koy commencé njortu ca biir hôpital ba coono commencé naa judd ca biir hôpital ndax bu ñuy xool kuréelu euh, médecin yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal bokk na ci euh, SAMES ñoom ñoo ngi ñaaw ñaawlu ñàkk kerse nga xamante ni ñoo ngi koy def jamono ji médecin yi ak euh, jël ay tuuma di ko teg ci seen kaw ñoom lañu wax moo di ne état bu Sénégal ci boppam moo defut ay responsabilités ndaxte booy xool hôpital yu bëri ci réew mi dañoo manqué équipement manque équipement yooyu mooy waral tamit manque d'accueil bu professionnel bi nga xam ne dañ koy seetlu des fois ak tamit yenn frustration yi am ci suñuy élément de santé lépp li ko waral moo di euh, ñàkk taxaw gi nga xamante ne état bu Sénégal ñàkk nañ ko taxaw suñu système euh, sanitaire bi en tout cas ñu bari daal ñu ngi taxaw seetlu ci sage-femme yi ba ci tamit euh, yenn ci ay infirmières nit ñuy taxawoo yenn ci ay jigéen yoo xamante ne nii dañuy ñëw war a am doom. nekk ci situation yi critique ñu leen di ñàkkal kersa ak ñàkk taxawu li ni mel daal tax nañu ñu bëri di laajte bu fekkee de euh, ci hôpital da daan sauver doomi aadama ñu dem fa ba fay ñàkk bakkan kon est-ce que jarati na ñuy dem ci hôpital di fa amee doom ndaxte booy xool ci doonu Tambacounda rek lu ëpp téeméeri doomi adama ñàkk nañ seen bakkan ci ñàkk rek taxawu. gu euh, waa hôpital ba ñàkk taxawu rek seeni patient ba tax na ñoom ñu ñàkk seen bakkan te dañ doon am doom te li ni mel nag lu lu ñuy seetlu la ci yenn ci ay hôpital bokk na ci ca duwaanu waa Mbuur nga xam ne ñoom seen hôpital ba fi mu toll nii ñoo ngay def alerte ne seen situation ñoom tam doy nañu waar lool te yar sàkku nag ci état bu Sénégal ñu dimbale leen balaa yi musiba mbaa bakkumba di fi am ndaxte bari nay patient yoo xamante ni pour ñu mottali seen mission ci ñoom dina xaw a jafe lool ndax ay manque de matériel ak ñàkk taxaw goo xamante ni nii commencé nañ ko seetlu ca biir hôpital ba état bu Sénégal di seetaan euh, hôpital bi ni mel ci seeni manque de matériel ak tamit yenn yoo xamante ne ni dañ koy soxla par urgence ñoom euh, hôpital bu Grand buur euh, di ñaawlu fi mu toll nii situation ya ñu nekkee ne fi mu toll nii dañoo am problème de rajo am problème mu scanner am problème mu échographie am problème mu mammographie ak pour mën a def sax ay examens spéciaux dafa nekk jafe-jafe ci biir hôpital ba lii yëpp di ay naqardo yoo xamante ni ñoo ngi koy def. ba tax na ñoom ñoo ngi sax euh, informé euh, état bu Sénégal nii il faut que ñu jug ci li ni te dinañ amal sax benn point de presse boo xamante ni ci samedi yi yemook 16 avril 2022 dinañ ko def à partir de 12 heures ngir fàttal fàttali état bu Sénégal jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi ca hôpital bu Grand Mbour ndaxte fi mu toll nii ñoo ngi yàq lu mel ne xamee personnel de santé yi nekk ci hôpital yi te xamuñu ne état bu Sénégal ci boppam ñoom ñoo defal seen wareef ci biir hôpital yi bu ñuy seetlu nag ba tey jii tamit ci jafe-jafe yi nga xamante ne nii moo nekk ci biir hôpital yi am na beneen hôpital boo xamante ni moom tamit mu ngi euh, def euh, alerte te moo di Le Dantec bi nga xamante ni fi mu toll nii ñoom it ñu ngi ñaawlu bu baax a baax a baax ñàkk taxaw ki nga xamante ni di état bu Sénégal euh, mu ngi leen koy euh, ñàkk taxawoo ndaxte fi mu toll nii ñoom soxla nañu bu baax ndimbal euh, ci ay jafe-jafe yi nga xamante ni am nañ ko ci seen biir hôpital ba. en tout cas li wér te wër daal Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mu ngi doon xamale ne gis nga médecin yi dañu war a bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di seeni patient parce que doomi aadama bakkan la boo xamante ni di suñu boroom daf ko fonk lool te nag coono bi nga xamante ni moom la yàlla daj ci reine d'Angleterre coono bi ni mel daj ci jigéenu Sénégal bi nga xam ne mooy jaay caaf ci buntu école wala sax ci mbedd mi loolu di firndeen rek ne jigéen ñëpp a yem kon nag war nañu gën a bàyyiwaat xel jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñooy am doom ci biir hôpital yi ñu laaj taxaw ak tamit hospitalisation bu jaar yoon ba tax na daal ñu war leen a bàyyi xel bu baax rawatina nag seen bokk jigéen yi nga xamante ni ay infirmière dañoo ki sage ñu war leen a bàyyi xel bu baax lii nag war a tax ba Sénégal gi yëpp nag jug wax ci situation yi di xew ci suñu hôpital yi donte nag ñoo ngi joxoñ baaraamu tuuma état bi waaye tamit ñoom personnel de bi ñu gën a xamaat seen bopp xamaat seen responsabilité ndaxte bakkan dafa foor lool parce que tamit seen comportement bokk na ci niñ ci seetlu moo di ñàkk yëg ak ñàkk kersa ak tamit di wuyu téléphone suba ngoon guddeeg bëccëg ci jamono boo xamante ni ñu ngi am ay patients yu nekk en urgence lii daal la ñuy seetlu ci yenn ci ay hôpital te nag euh, lu ñaaw la loo xamante ne nii vraiment sénégalais yëpp nag ñoo ngi koy ñaawlu kenn ku ci nekk di génnee ay seede ak i seetlu yoo xam ne def nañ ko ci hôpital yi rawatina ci sages-femmes yi ak infirmières yi ne daal jot nañu changer seen doxalin. mbokk yi ñoo ngi ñaanal asu soxna yàlla yërëm ko taxare ko aljanna tey ñaan tamit suñu personnel de santé yi ñu daal di góorgóorlu rek ndaxte nag xam nañu ne ay jàmbaar lañu lool waaye tamit ñu jara jàppale lañu rawatina état bu jàppale leen. xanaa rek di ñaan yàlla gën a dolli jàmm ci réew mi sutura ak xéewal ñoo ngi koy ñaanal képp koo xam ne yaa ngi doon bàyyi xel chronique de Mame Khalifa di leen jox rendez-vous fan yi ñu jëm fii ci bii Ken Bougoul TV di leen di ñaan tamit ngeen di abonné ka bàyyi xel programme Ken Bougoul TV jërë ngeen jëf fan yi ñu jëm incha allah